yàlla du def jéem naa ko pour ndam am te duma ci dee ndax ñi ci dee ñëpp bëgguma ñu dee ci Macky rek mais su ma sañoon kenn du ci dee su ma sañoon kenn du ci dee nañuy laayante biir di nangu wante ñi critiquante mais critique boo xam ne yow mi ma bokkal parti yow mi ma bokkal projet bi su ma la critiqué bul jàpp na ma la critiqué li ma lay critiquer pour projet bi la du man du yow suñu jëmmi dafa ndax projet bi man damay dee bàyyi ko fi yow da ngay dee bàyyi ko fi ndax projet bi du dee incha allahu rabbi te li tax du dee mooy ñuy waxante dëgg mooy samp ko sampin woo xam ne maa ngi yow bu ñu xëyee dee ñeneen ñi ñëw la relève pour continuer projet bi projet bi wut dee kon suñu jëmmi ju ndaw la par rapport ak projet bi lépp nag loo xam ne da koy dëgëral da koy man bëgg naa ma lu ma leen wax fii ne leen projet bi war naa toog ci bopp réew mi cent pour que li ñu bëgg ci Sénégal dëgg dëgg dëgg am Sénégal gi ma bëgg di ko mébét man suy am du ma fi fekk ci biir bàmmeel la may fekk waaye ñaan naa yàlla bokk ci ñi koy suuxat pour loolu am wax na leen ko waxati ko loolu la gëm ku ñemee tudd yenn sujet yoo xam ne yéen ñi kenn ñemee ko tudd man di ko tudd di ci wax di ci teg loo xam ne kenn ko teggi xam ngeen ne man ñàkk mu damaa am autonomie am liberté on bëgg réew xam nga kenn du ko xupp ak di ko lu ma wax lu ma gëm la du ma lu ma gëmul du ma ko wax kon bokk projet nag mu ne tekkiwul bokk daayira ak bokk sëriñ fii du daayira du ab sëriñ Ousmane nee na du ma sëriñ du ma xut bu du ma wàllu yu Bassirou Diomaye wax na leen ko ñii ñu àndal ñu suñu ay nawle duñu ay sëriñ duñu ay xutbu duñu ay wàllu yu ay nit lañu di def lu baax di juum léeg-léeg ci seen i yéene ak seen i jëf ñun ñi ànd ak ñoom di def lu baax di juum ñun ñi tamit ñu war di dimbalante ci joyante moo tax ñu yokk jubba jub jubal jubbanti <laughs> nit kay bu bëgg Basiru ak Ousmane bu ñuy jubbanti ñun tamit war nañu mën a jubbanti ku nekk di jubbanti sama loolu mooy projet bi jàppalante laayante bi mais dans la bonne fois defuloo ko pour yàq defuloo ko pour saboter danga koo def pour xippi xel yi. pour joyanti pour mu gën a dëgër pour que nit ñi gën a yeewu pour que ñu gën a moy ci projet bi loolu mooy sabat bi mais defuñu ko pour saboter seulement nag réew mi dañoo aadawoo booy def autocritique da koy dugg ci sa suuf la nan nañ ko nañ ko pencoo tëj néeg bi loolu aada la diine ñun Sénégal dañoo am aada ju bon mooy dëgg bu ñu koy wax nañ ko wax ci suuf ndànk waaye bu ñuy fen nañ ko fen ca kaw fen moom nañ ko nodd ci jàkka yi waaye dëgg moom ci suuf loolu ak naa feq la aada bon bu ñuy fen ak xuloo nañ ko na ko ñëpp dégg waaye bu ñuy waxante dëgg nañ ko wax ci suuf bu ko kenn yëg xanaa dëgg dafa tumurànke wala dëgg dafa ñaaw wala dëgg dafa bon ba waruñu ko yëkkati noonu kaw ñëpp dégg ko dëgg ba war ñëpp di ko dégg ay fen ñu ko ci suuf dëgg di jip ca kaw Sénégal ko le contraire fen yee nekk ca kaw dëgg yi ñu koy mun munu ci suuf man bokkuma ci ñooñu yàlla na ma ci yàlla musal mu ne leen ak Ouais, mais je ne peux pas tout le temps passer mon temps <laughs> sur les commentaires. Il m'arrive de, tomber sur un commentaire, mais c'est vrai que bon, je ne suis pas habitué à lire les commentaires parce que bon, je ne suis pas. Des fois, je pour lire les commentaires aussi. Dans mes, dans mes, dans mes, dans mes, dans mes wax. je wax, de lire les commentaires, ni ni me déglou, tu wax dit. Ni beug may lire un commentaire mënu ma fi nek fe de temps en temps ma ci xool commentaire bi xool je sais qui vous êtes sa maam sama <laughs> Là, je la au commentaire je sais qui vous êtes sa mam voilà il faut créer euh, une quoi une cour spéciale à la justice il faut la traque des biens volés je ne parle pas de biens mal acquis il nous faut rapidement dans les discours du président dans les communiqués du conseil des ministres président teg ay actes fort communiqué conseil des ministres, cee veux a gis acte fort le président de la République a insu le Premier ministre de réfléchir sur un projet de loi ou sur un projet de décret visant à réviser donc euh, l'OFNAC. Mais euh, le, président de la République a instruit le Premier ministre à réfléchir sur la mise en place euh, de, la crise. Comment faire revenir la crise, la Cour de répression de l'enseignement illicite. Voilà, loolu laa bëgg dégg le la République a été le premier suisse, comment on peut aujourd'hui euh, juger tous les crimes de 2022 tout ça en abrogeant la loi sur l'amnistie hein? comment voilà un projet de loi euh, ma ñëw laay xaar ci conseil gisagu ma ko conseil des ministres gisagu ma yooyu parce que nag dama am lu ma métti de sama xol te giifagul te ñi ma ko teg mooy Macky Sall ak ay ñam ma gis leen ñi gëndaan di wër avion yi dugg ci palais yi Amadou Ba Paris ma nga dëkk ci hôtel te watu Élysée Emmanuel Macron fi mu dëkk Élysée ak fi Amadou Ba dëkk cent mètres da ngay dox day génn ci palais bi dugg ci Élysée bi ñu jox ko ay instruction ay ordre ngemb ko ne ko demal Sénégal Ousmane Sonko ak Diomaye bu leen may dara boo soxlaa xaalis ñaa ngi fi daañu la jox renseignement avec l'armée française tout ça Amadou Ba mook Cheikh Omar Anne ñebbe ñoo ànd ña nga dëkk ci hôtel ba di fay mille euros par jour mille euros six cent cinquante ay chambre ñu am problème mu budget problème mu xaalis jamono boobu ñoom ñoo sàcc alal ji milliards yi ñu ko ci hôtelu français jaaxaan Macky Sall ñuy liggéey France ñu jox Macky Sall cuisinier aide de camp secrétaire jox ko budget pour billet d'avion di ko fay dix millions xama neuf millions quinze millions par mois moom Macky Sall jamono boobu Macky Sall mi ngi liggéeyal France

باغا خامني ليغي لو كين مي كو خامني بيس ديغا واتي nga ген ريومي دوكو سوني افيون ديم سا يون فرانس ديال لا ديلا ليغي ديلا يوني فني ني جوخ لا سوني علال مي نين كون نين ناني باي فرانس كون نين بو نيوخات دارا فرانس باسكو ماكسال مونت خير فرانس يوني كو جوخ سوني علال كون بو نيوخات دارا فرانس وانت دكو سي باي نخانتني ولكن اللي خير اللي جاي فرنسا ايمانويل ماكرون يخرج سوني علال بوكو pourquoi sax ñu koy jox xaalis sàcc nañu suñu alal ñun ñëpp Abdoulaye Wade da ci Macky Sall ñun ñëpp ay sàcc lañu dañu yor ci ay milliards bu jeex ñu ko nag leen fay pourquoi pourquoi dañ jox xaalis dañ jox oto dañ jox ay billets d'avion secrétaire euh, cuisinier secrétaire particulier euh, garde du corps yëpp ci suñu ay budget ñun jamono boobu xale yaa ngi taxaw xamuñu fu ñu jëm mais li taxul li li li taxul ñuy xeex Macky dañ ko war a jàpp fu mu mënti nekk ci aduna il faut ou parce que attention Sénégal fi régime Macky bi do ci japp kenn te jàppoo Macky Sall fi téye mun la Macky ma def loolu khalis bu ñu fi sàcc Macky ko signé mo joxé autorisation pour ñu sàcc mooy sàcc bu mag bi kooku mën a mucc soo téewul Macky do té téye kenn il faut ñu téye ko il faut ñu téye bu ngeen amul fu téye ko ngeen wama man dama koy té Macky fu mu mën nekk ci aduna dama koy té su fekkee yéen ñemewu leen ko téye ngeen dénk ma dossier boobu ma téye leen Macky Sall mais Macky mënut a mënut a mucc Macky su muccee mooy Sénégal dootul baax daa iman ndax ku gën a bon Macky Sall yàlla seko lii mu def ni bu bu ngeen ko passé en perte et profit yéen ci boppam du ngeen fi taxawal dëgg bu leen ko sax jéem Macky Sall baaxul Macky Sall i faut le prendre Macky nañu ko atte nañu ko woo nangu passeport yi melu téyeku mu transiger teg mille milliards ci ko taabal ji ñu defal ko liberté provisoire en attendant ñu juge ko ñu def ko ci keesu état bi woo Amadou Ba pareil Cheikh Oumar Anne pareil Antoine Diome pareil Sidiki Kaba pareil ñoom ñëpp ben par ben ay sàcc lañu Farba Ngom Mame Mbaye Niang Abdou Karim Fofana Aliou Ndoye ay sàcc Moustapha Niass ñoom ñëpp ay sàcc lañu maa leen ko wax mais possible quand même réew mi ba sa xol sedd rey ba sa xol sedd tëj ba sa xol sedd dóor ba sa xol sedd xëy dem arawaar dem naa sama yoon dara du la ci fekk ñuy wax ay jub jubal jubanti mais loolu ay mais benn mbokk yi nañ leen waxante dëgg néew ma def lépp tout de waxuma ko de xam naa ne du bouton booy bés lépp sotti xam naa ko maa leen gën a xam bu baax les procédures xam naa bu baax ni état di doxee xam ni état di doxee moo tax may wax lii néew ma xëy def lépp tey tey tey tey waxuma ko maa leen gën a xam ne lépp mën doxee sotti waaye dafa am ak yëglu li olof di tuddee annonce yëglu gis nga cin bu naree neex su baxee day xeeñ dafa am ay signaux yoo war a def dafa am ay actes yoo war a posé yoo xam ne boo ko tegee ñu xam ne kii ah ah sama waa ji billaay sama waa ca puuje tey mu neex de nga xam fi ñu jëm cin li commencé bax bax yi nga xam ne penn mbay bi dina neex mais cin loo xam ne ba nga ko taalee ba léegi xeeñul mais kooku kenn du xaar ñu yàq ko dañu waxante dëgg li may wax lu ma xam la Mansour Faye goro Macky Sall cinquante milliards yi mu def Monaco nañ ko jël te la mu yor Dubaï ak Chine moo ëpp ak Canada seen xaalis yëpp nekk xam nañ ko na enquête yi commencé commission rogatoire yi commencé ñu dem jëli xaalis convoqué leen ñoom ñëpp comme ni Macky Sall convoqué woon Karim Wade en 2012 bi mu faloo dafa convoqué Karim était à Paris Macky da ko convoqué CREI ko convoqué mu ñëw ñu entendre ko mandat de dépôt tëj ko ci kaso bi. nañu commencé ubbi dossier d' instruction yi nu mu gën a gaawee Ousmane bi ngeen fal ne nit ku baax la ñëpp tagg ko ñi ngi koy xaar na gaaw amuñu temps layam layam bi cinq ans dafa gaaw cinq ans bu ñu ko deful du ñu am deuxième mandat kenn du fal lu leer laay wax bu ñu bu ñu ubbiwul dossier ci sàcc yi kenn du ñu fal deux mille vingt neuf du fal Sénégalais du ñu leen fal maa leen ko wax tout de suite tey li may wax na jël muus la ku yaakaar ne da nga am Sénégalais de façon définitive da nga am électorat bi de façon acquise te da nga da nga leen a am daa iman du la ñàkk bañ a voté ku ko yaakaar mi ngi suñu kanam qui ne peut pas être techniquement pourquoi nee na Macky ne peut pas être poursuivi techniquement pourquoi C'est une bonne question. Sall ne peut pas être poursuivi techniquement. Je ne sais pas qui l'a dit, je l'ai lu tout de suite là. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas le nom. Je ne sais pas qui c'est. Mais même pour l'État Sénégal, tout pour le Macky Sall en interne, amener un dossier au niveau de la CPI, l'État du Sénégal peut cette fois-ci demander à la CPI de juger donc les plaintes qui sont au niveau donc de la CPI. Parce qu'au niveau de la CPI, qu'est-ce qu'ils avaient dit La CPI, pour nous saisir quoi C'est un des États membres qui peut saisir la CPI. Ou bien le procureur spécial de la CPI, mon moment saisir la CPI, ou bien les Nations Unies. de saisir la CPI. En particulier pour saisir la CPI, mais pas directement. Il saisit le procureur spécial ce que Juan Branco a fait Juan Branco a saisi le procureur spécial Il a dossier procureur spécial bi moo koy étudier xool ba xam daf koy instruire wala donc le dossier est entre les mains du procureur spécial mais am na l'État du Sénégal peut saisir le procureur spécial l'État a le droit de saisir direct du de la CPI bu ko àtteewul bu ko Sénégal Macky Sall il peut poursuivre la CPI moom ak Amadou dossier ils ont bien été répertoriés et les gens vont sortir encore d'autres dossiers des des révélations vont sortir il y aura des témoignages les Sénégalais sont prêts aujourd'hui à témoigner ils sont prêts à témoigner l'État doit saisir le procureur spécial de la CPI pour que le dossier soit fa au moins même si ko atteewul ci bi Sénégal Donc, qui dit que oui, on ne va pas poursuivre techniquement le président Macky Sall <laughs> pour le poursuivre Macky Sall, oui, on le poursuit que sur la base donc la haute trahison, oui. La haute trahison. Oui. Il faut, il faut déclencher la procédure pour voir ce que ça donne. Si, Macky Sall, on peut le poursuivre par haute trahison. On ne l'a jamais déclenché dans ce pays. Pourquoi nos président de la République, on ne peut pas les poursuivre Abdou Diouf Wade tok def lu ko neex dem maki def lu ko neex dem suba Diomaye def lu ko neex dem entre temps ñu ne président yi na ngeen def seen déclaration de patrimoine lu mu jëriñ déclaré patrimoine dugg génn boo xam ne kenn mënu la top. lu mu jëriñ c' est une bureaucratie c' est une c' est un trompe-l'œil dañuy nax askan donc président yi suñ ko suñ leen mën a topp bu leen demandé ay ñuy waataki bu buñ leen demandé ay ñu leen demandé ay euh, euh, déclaration de patrimoine ay tappale la parce que déclarer sa patrimoine lu mu jëriñ bu ne kenn mënut a topp d' après li nga wax kenn mënu leen topp. li ngay xam nga kon kay bu ñu kenn dafa sàcc ki ay fond politique bi nañ ciy wax ak président dafa bari ay pouvoir nañ leen bàyyi seen i pouvoir ñu nekk ay yàlla di buuma ko bumi ku pare dem jox sa morom réew mi toll ci nii réew mi du du dox mukk kenn xamul li ngeen bëgg. haute trahison n'a pas de définition ndok loolu la gën ci trahison amul définition. très bien nous ñun ñoo définit, définir est top Macky Sall moo koy définir haute trahison amul définition loolu ay wax la définir ko de façon factuelle mais il y a des faits qui sont qualifiables de haute trahison donc c'est le juge qui qualifie la haute trahison très bien contrat bi ya ko signé contrat bi ya ko signé contrat bi ya ko signé quel est l'intérêt du Sénégal ci contrat bi wax ñu ko wax 460 et quelques milliards eau de de désalinisation bi nga signé le 26 bi avant ngay dem 26 à 4 4 jours 5 jours nga jox ko saoudiens quel est l'intérêt du Sénégal contrat bu mel non ne moñu pas koy wax loolu loolu du trahison mais yeen xam nga mais yeen da ngeen dig ay concept la trahison n'est pas définie on ne peut pas définir la trahison parce que la trahison elle est diverse il faut la définir au cas par cas motax tax ko c'est le juge qui a qui a la capacité de définir les faits

autoriser gars yi ñu dépenser xaalis Covid bi nu nous leen neexee amul contrôle gars yi sàcc xaalis bi def seen i poche ngeen naan ma oui ñu ko juger parce que haute trahison kenn définir que vous êtes dans la littérature jacobine vous êtes ça se voit que vous avez la formation des français là Vous tourner autour du pot rhétorique oui définition vous êtes dans des détails dans des broutilles Sall yor ci ay milliards bu ñu leen ko waxoon tey jii yi du fanaan ci pale bi da ngeen koy fekk ci pale bi génn ko ak ay yet man leen ko wax li Macky Sall sàcc ci alal ci bu ko Sénégalais yi bis bu ngeen ko xamee jomaay ngeen di mere da ngeen koy génn ci pale bi te li may xam na ko moom ak Sonko xam nañ Macky Sall nag wax na ak yéen avant mu dem am ay dossiers yu mu leen jox am ay wax yu mu leen wax jëmale ko ci ay nit. naan moytu leen diw rek moytu leen cee kër kër kër Macky Sall du ku ñuy déglu Macky Sall du ku ñuy déglu du ku baax ay conseiller Macky Sall bu ngeen ci sukkandikoo ba tax ngeen tëju tëj seeni téléphone waxatu leen ak kenn yéen ñaar kot ngeen bëgg a doxal Sénégal Sénégal yi dañuy taxaw di leen xool di leen seetaan ba xam mën ngeen a doxal ñaar kot Ousmane Sonko Diomaye ba xam yéen ket mën ngeen a doxal Sénégal Sénégal dañuy taxaw leen xool bisimilah mi ngi kanam tëj leen seen téléphone barricade wu Sénégal yi taxaw leen xool waa gën ma dañoo tëju fi mu toll nii kenn mënu leen jot may leen bu ñu tëjoo ngeen taxaw ci buntu bi xaar leen xaar daañu yàgg yàgg daañu génn ku ku dugg tëju da nga génn taxaw leen ci buntu bi xaar leen daañu génn nañ tëju bu leen neexee nañ tëju seen téléphone tëj yéen ñi leen faloon taxaw leen ci biti leen xaar rek yàgg yàgg daañu tëj u génn. Antoine Diome ñoom ñëpp Abdoulaye Seydou Sall Abdoulaye Seydou Sow ministre de de l'urbanisme mais kooku kooku kooku kooku ci kaso bi la war a dee sàcc la sàcc bu mag a mag Abdou Khafor Touré lañ la joxoon daani ko topp Cheikh Issa Sall bu CDC Alioune Sall bu CDC Madiambal Diagne Youssou Ndour ñoom Mamadou Ibra Kane ñoom ñëpp ay sàcc lañu dégg naa média yëpp a ngi daanu fi mu toll ñu ngi yuuxu naan tous les médias vont tomber mais kon yéen ñu ngeen doon dunde dafa am loo xam ne dafa flagrant Macky Sall jóge fi matagul weer te nee nañu amatuñu lu ñu fayee bu Youssou Ndour i média bi nga xam ne ay góor jigéen a ko monté nee nañu xaalis kon télé yi ku leen doon financé kan moo doon financé télé moo doon yi de financer télé Eh et bien voilà pouvoir le un mois nous avons amatuñu lu ñu la télé nous avons grève le Sénégal est comme ça c'est comme ça que ce pays marche ah, comment ça marche ma des comptes bi dafa que une politique publique dañ ko ñoom may mu ne Ndour rek ñoom ñëppay tëj may mun ne Ndour sax amul employé moom dong la moom télé bi moom kott la may mu a Ndour télé benn nit la ak benn caméraman moom amul ay vrai dañ koy jox xaalis muy lekk moom kott moo toog ci kaw chaise bi invité benn ak benn caméraman amul kenn moom télé bi licence am boobu amul ñe dañu ko nangu daya fayul impôt fayul de tappale may mu ne Ndour loolu du télé. daf ma yàgg na ndok moo xam. yak na ko lu ne mu bloqué ma parce que tappalekat la dóorkat la mais mu doon diir fay Prodac il faut assainir le milieu de l'audiovisuel assainir ko bu baax ñom ñëpp dañu déposer ay bilan na télé yëpp tecc état bi nangu ay licence am jox ko ño xam dañuy liggéey qui ont des projets sérieux des télé rentables mais télé tappalekatu dóorkatu maté yi nekk di politique ci média yi di influencer nit ñi négativement yak bop xalé yi di politiques ci média licence assainir les chaînes de télévision licence jox ko vrai nit dans l'éducation populaire dans la culture dans l'accompagnement des projets ñu jox licence télévision ak xanaa bu xanaa lii dafa gàccew ngeen dawal sax si mois wala un an ne ah léegi da am nañu ay jafe-jafe parce que xëy na amatuñu ay publicité waaye yow Macky Sall daanu le vingt quatre tey le trente avril ngeen nañu mënuñoo fay salaire lii lii dafa leer dafa leer dafa teel nañu waxante dëgg waxante dëgg kon li nga xam ne mooy yaakaaru askan wi li nga xam ne moo taxoon askan wi di xeex li nga xam ne mooy li askan wi di xaat te bëgg justice sociale te mooy développement économique ak social te mooy industrialisation te mooy nationalisation de certaines société te mooy contrôle de certaines concessions yenn contrat de concession yi nga xam ne nañ ko société yi defal leen ce qu'on appelle la délégation de services publics. xam toutes les sociétés délégataires moo xam euh, senac bu y moo xam contrat yi nga xam defal nañ ko yenn moo euh, bu senac bi autoroute bi moo xam bu bu bu def euh, bu ñu société yi or bi Sabodala moo xam les sociétés minières comme GCO bi El Malick Ndiaye nekkoon euh, te yore li nga xam ne mooy zircon bi moo xam euh, ICS bi ñu jox indien yi ñu jël suñu phosphate exploité ko def ko ci ay saxaar yóbbu ko ci port bi yeb ko ci ay bateau teg ko ci géej gi pousse ko ba Inde yebbi ko Inde def ko ci seeni usine enrichir ko tasaare ko ci seeni baykat ñu def ko ci seen suuf bay ci ceeb deqi ceeb ba bacc ko sol ko ci ay saaku jaayaat ko Sénégal ci valeur 300 milliards yo xamne dañ koy jënd ci chaque année bu joggé Inde mu ñeel mu ñëwaat Sénégal sénégalais yi lek ko mu dem ci cabinet yi est-ce que lii lañ bëgg mu continuer di wi est-ce que li mo taxo ñi xex est-ce que li mo dund bi ñu bëgg engrais bi joggé Sénégal dem ba Inde Inde bay ci ceeb ñëw jaayaat ñuko ko ñu di ko xëccoo naan bu parfumé bi ak bu ñàkk parfumé bi lek ko ba mu ba mu ki jeex ba mu ki ñu yóbbu ko ci cabinet bi est que lii lañ bëgg di continuer muy dund wala duñu bëgg a defal suñu ceebu bopp am nañu suuf si am nañ ndox mi la vallée du fleuve am nañ la Casamance am nañu ndox am nañu suuf am nañu engrais dara manqué wuñu lu vision ak président boo xam ne day liggéey waaye pas président buy solo xaftaan président bu yor kurus di dugg ci sëriñ si di seeti jàkk yeeg tabax ay juma tant que ngi def loolu réew mi duñu am lu ñu lekk autosuffisance du fi am nañu non il faut ñu waxante dëgg li may wax su amul ngeen na amul man je suis factuel li may wax su amul ngeen na ma Akhenaton yow da ngay gént di wax di sànni yow jëroo déglu jëroo topp li ngay wax du waxi dara wax leen ko ma bayi ma rek su amul ngeen wax ma ko léegi ñu mën a waxante dëgg ñun acte yi ma gis ñu koy poser les premiers actes man dama ci tiit waaw ci dëgg-dëgg dama ci tiit c'est pas ce que j'attendais mais nak on garde espoir on va rester patient xarandi da ñu dal ñu rafet njort sax dañ cey ànd ak rafet njort ne fi ci kanam xayna liñu yaakar ak liñu liñuy xaar

en ah, trois phases à court terme à moyen terme à long terme si naka lañuy indé ndox Touba maa ngi koy xol paré guma ci suma ci paré dina ki def waxtan ak yeen ñu càmbar ko ben par ben parce que dafa bari ay lobby ak ay mafia yo xamné ay nañ ci teug projet dugal ci état nan dañuy uti ay ñukay financer mu ñew ñu tok lek moitié ba ñoñu bokku na ci ñi nga xamné ñen ñi barki démb gis na ñu dem séti ministre bi di Cheikh Tidiane ça c'est de l'hydraulique mu recevoir leen ci bureau génn photo ak ñoom posté ko ci Facebook am ne am naa mbégte gu rëy di ma taseeg ñi nga xam ne wàllu ndox ci réew mi ñoo si mas di liggéey ñu liggéey ci ba retraité ay créé seen association seen ido ñu ñëw seet si ma tey ñoom ñi nga xam ne ñooy anciens yi ñi doon liggéey ci wàllu ndoxum Sénégal ba retraité am naa mbégte tey ci dalal leen ci ministère bi jox nañ ma ay conseil yu bari nag yu baax yoo xam ne fas naa cee yéene sukkandiku ngir indi coppite yi wala soppi ci ndoxum réew mi nga xam ne waa Touba dañ ko soxla ku nekk soxla ko ci réew mi mën a Cheikh Tidiane Dièye avec tout le respect naka nga mën a sukkandikoo ci lu yàq ndox mi ci réew mi pour bëgg a defar yàqu-yàqu ndox ci réew mi ñi yàq réew mi ci Abdou Diouf ba léegi mooy màggati xobidaas yooyu nga dajaloo directeur de l'hydraulique directeur du PEPAM nous nga le secteur de l'hydraulique du Sénégal depuis 40 ans nous avons ñoo fa Nous fa commission corruption nekk directeur hydraulique am sa entreprise ci da nga jël sa mbokk ko fa marché hydraulique di monter dossier hydraulique yi di outil financement banque mondiale FMI ñu indi financement bi nga def appel d'offres bi jox ko sa ben société bo xamné ya ko mom en prêt non ci ginnaw, mu taf yëngal taf taf liggéey bi du baax ñu facturer ko bureau de contrôle bi visé nga jox ko xaalis corrompre ko xaliss bi génn sa mbokk bi encaissé ko ci ginnaw, jox la ko ci ginnaw nga nappaage say jeex pendant 40 ans li moo fi am Ñoon ñu doon def lolu, loolu ñu wëlbatiku dem ba màggat légui, yor seen ay société di compte di di di app di di gagner ay marché par copinage ñu créer seen association def seen benn lobby ñu joxante marché yi tey ñoo dem seeti Cheikh Tidiane Dièye Cheikh Tidiane Dièye di bàkku di kontaan ne ci seeni conseil laa nar a sukkandikoo pour indi ndox mi ci réew mi ma man maa jommi naka nga bëgg a sukkal naka nga bëgg a sukkandikoo ci ay yàqkat pour def pour jubbanti yàqkat pour jubbanti yàqu-yàqu yi fi am ñi ko sos nga ne ñoom ngay déglu seen conseil pour jubbanti ko ne ko yow ma ne ko dangaa teel a lajj On nga recevoir des leen en tant que ministre ci sa page Facebook des gens aussi négatifs que cette association de malfaiteurs le projet des vallées fossiles la le projet du barrage de Diamant, la Manantali ñoom projet en matière hydraulique la réforme sur l'électro, sur l'hydraulique rurale avec aussi euh, euh, Ofor yi ñoom ñoo nek ci ginnaaw réforme bi jël seen ay société monter seen ay association di jaay ndox bi plus cher dans le monde rural di encaisser sa di ko léegi tëdd Ndakaar di na nappaage seen i ñoo ñooñu Cheikh Tidiane djey ministre de l'hydraulique néna ci ñoo ñooñu la dara sukkandiku pour soppi yàqu-yàqu yi nga xamné ñom gi seen bop ñoko ko dugal ci biir ndox bi. ngeen fogg na ñun dañ doon xeex di jël ay risques. pour que yéen ngeen di fo a photo wu ak di affiché ci Facebook bi ñun ay risque lañ jël ñi tëdd ci kaso bi ñii ñu ne mënu leen a dem ak dikk jamono boobu yéen yéen a ngi dem di dikk amu leen interdiction fenn tey yéen lañ fal ngeen di photo wu ñun suñu xol day tàng ci loolu fam ñoo xam ne bëgguñu leen gis Sénégal mënuñu faa jàpp président buy sàcc mais Mauritanie moom mën nañ faa tëj président buy sàcc après bu ñu paree ñu ne naar yi ñoo ñu ëpp fulla naar yi ëpp ñu ñu fulla ñun ñee ñee suñu maam yi suñu mag ñu baax ñi seen mag ñu baax réew mi seen mag ñu baax ñi nekk kenn mënu fee président buy sàcc mais Mauritanie gee nga xam ne amuñu ay mag yu baax président bu fa sàcc ñu def la ci bi xoolaat leen seen bopp milliards de nouveaux il faut transformer ce pays avec des esprits nouveaux il ne faut pas avoir le complexe de ces gens-là nous, nous sommes les experts nous avons 30 ans de métier nous les quatre lañu on n'a pas besoin de leur mauvaise expérience de 30 ans ou de 40 ans de métier arrêtez d'être complexé arrêtez d'avoir ce réflexe français travailler avec cette, nouvelle génération, les, nouvelles, les nouveaux jeunes hydroélectriciens là nga les anciens hydraulique l'hydraulique a évolué maintenant les mécanismes, les modalités, l'ingénierie dans l'hydraulique aujourd'hui a beaucoup évolué et il faut travailler avec cette nouvelle génération d'ingénieurs. que, mais attendez, attendez, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. nous sommes dans un pays où c'est la gérontocratie. Plus tu es âgé, plus tu es respecté. Plus tu es âgé, plus on t'écoute. Plus tu es âgé, plus tu as de l'expérience. Et plus tu as de l'expérience, la mauvaise expérience, plus on te prend pour un conseiller. Mais c'est quoi ce réflexe rétrograde Alors que ce sont les mecs qui disent, oui, moi, je suis docteur en ceci, je suis docteur en cela. Ce complexe tiré de la colonisation, de l'école française. Oui, c'est un ancien, il a 40 ans d'expérience, c'est un homme âgé. Donc, à l'âge, ça signifie l'expérience. L'expérience, ça signifie donc tout ce qui est bien, directement, non alors que nous nous nous nous nous Nous Sénégal Nous nous nous nous Nous bu nous ça sera ainsi désormais. La gouvernance des affaires publiques ne sera plus comme avant. Plus. Faites très attention. Surveillez vos arrières, vos photos, vos postures, vos positions, vos paroles, vos actes. Il faut les surveiller au jour le jour. Marchez. Le nerf, le nerf, communiquer. Yo, cher Séminaire gouvernemental, bien annonce le Conseil des ministres defaguñ ko muy lan un séminaire qui war a former les ministres parce que ñi ngeen am nañu compétence yenn CV mais malgré ça dañ leen former de compétence compétence ki c'est une présomption de compétence gouvernement boo ko bo boo jógee jaww ji ay aay aay aay boo dañ lay former teg la ci raay dafa am raay bo xam ne ngay dox former guñ leen jamono bi may wax ak yéen ñi ngi séminaire demba tay ñi ngi leen di former les ministres ñoom ñëpp ñi ngi leen di former ci naka lañu wara war a liggéey ci gouvernement parce que ba leneen la loolu pareegul nga yow ngay jël ay conseil ci ay màggati xubidaas yoo xam ne li yàqu ci ndox mi ba tax ñu fal la tey ba tax ñuy xeex ñoom ñoo ko def nga ne ñoom ngay déglu ñoom ngay jël ci ñoom conseil yow conseil waroo ko jël ci ñooñu da ngaa wax ne déglu sa gouvernement sa premier ministre ba ñu def ba ñu formé la ba wax yow noo war a waxee noo war a liggéeyee lan la ñuy xaar ci yow canevas yi ba tegal la ko ngay soog a wax waaye yow formé guñ la sax ci gouvernement bi premier ministre woote séminaire yow yaa nga commencé wax di affiché wu yaa ngi mel ne ku nekk ci opposition xamoon na léegi yaa ngi pouvoir yaa ngay comporté wu comme ku nekk ci opposition euh, posté ci sa Facebook ku nekk di posté seen post yooyu seen post Facebook yooyu moo leen di daaneel da ngeen xëy dàq leen man maa leen wax loolu da ngeen bañ a seen bopp. wax nag. j'ai rien contre Cheikh Tidiane Dièye c'est un ami je l'aime bien mais dama koy dimbali mu moytu Sénégal nag xamuñu xarit bu wax dëgg xamuñu ko waaw xamuñu ko ko xamuñu xarit bu lay wax dëgg xamuñu xam noonu bu lay xas ñoom loolu lañ xam moo tax xarit bu bu lay wax dëgg sax bu koy wax ci kaw dañ naan kii du xarit dafa bëgg a yàq wala dafa iñaan wala dafa rek déedéet lii ma koy wax pour moytu la te ma koy wax ku ñëpp dégg ko ndax lii muy yëngatu di ci wax lu ñëpp bokk la kon bu ci lu ba mu leen recevoir su ko posté wul woon bind du ma ko du ma ci wax waaye ba mu ko nee fang ca marché ba ki laa ci bokk ki laa xam li xew may indi sama xalaat teg ko ci marché bi nag ndax moom moo dem ca marché ba teg photo bi commenté bind ay bindam ca page Facebook am kon moo ko publier publiquement sénégalais la bokk ci ñi ko fal bokk ci ñi xeex mu fal su waxee man am lu mu posé ma am ci xalaat dama koy wax ca fa mu ko waxee su ma ko waxoon ci suuf ma wax ko ci suuf ca kaw la ko wax ma wax ko te kaw na moytu ñooñu ñooñu baaxuñu Cheikh Tidiane Dièye ministre de l'hydraulique moytul ñoo ñëw seet la baaxuñu mafia lañu xam naa leen bu baax baaxuñu bis boo leen dégloo bis boo leen dégloo da ko digale Sénégal yi parce que ndox dina gën a cher te dina gën a manqué ñoom la PEPAM ñoom la OFOR ñoom la Vallée Fossile ñoom la Manantali ñoom la Jama ñoom la le fait que ba léegi mënuñu am une quantité d'eau bi ñu am droit ci fleuve Sénégal des millions de mètres cubes ñu mën ko drainer pour les vallées fossiles nga xam ne suñu droit la ba léegi mënuñu ko utiliser xaalis ba lekk nañ ko ñoom ñi taxaw naan oui on est des experts des sages Cheikh Tidiane di leen titro ñoom ñooy mafia bi c'est ça le Sénégal man lambatuuma ay projet laa leen tegal te ñoom duñu ma weddi nañ ko auditer léegi xool ñoom ñoo jaay seen eau ñoom ñoo ànd ak ay tubaab France duggante ñoom monté société écran ne seen ñëwal Sénégal ñu jox la ndox mi Mansour Faye privatisé ko ñoom ñoo ñu taxaw foofu ak Cheikh Tidiane ji ñoom ñoo tax Ndakaaru amatu ndox ñoo jaay ndox mi cher jox tubaab bi euh, euh, dax bi bàyyi dégg nga maam bi jox ko sénégalais yor euh, taatu soow mu mu nëx mi dax ba ca kaw tubaab bi ni ko muy seen o ñu ne SONES yaa yor investissement yi yaay jënd ndox mi. yaay lépp luy jënd matériel bi soxna si yaay ut xaalis bu koy jënd xoolal li rek privatisation boo xam ne tubaab bi dañ ne ko yow yaay fayeeku yaay fayeeku xaalis bi gafaka gi yaa koy yore waaye robinet yeeg ndox yeeg tiwo yeeg investissement yeeg château d'eau yeeg pompe yeeg yooyu sones yow yaay labi xaalis jënd lool defar ko ba ndox mi mën a daw dugg ci kër yi sones loolu yaa ko def yaay labi xaalis def ko état mooy def loolu soo ko defee ba ndox yi dugg ci kër yi seen o tubaab bi moom ñëw daal di ban daal di samp ab ab ab compteur pour fayeeku tubaab bi mooy fayeeku xaalis bi waaye Sénégal mooy <laughs> ñun ñun duñu dem ñun duñu dem te loolu ka seen o dañ ko créé Sénégal waaye Suez la ñoom ñu toogoon ak ministre bi ñoo dem négocier ak Suez parce que dañuy liggéey ci hydraulique am nañu ay partenaire am nañu ay xarit biir Suez ñoo leen di wax kaay leen Sénégal ngeen jël ndox mi tubaab bi ne leen nu ñu koy jëlee ñu ne ñu mën nañoo monter ñun projet def lobbying ci état tiital ministre bi bi tiital premier ministre bu ñu deful lii KMS deux ndox mi doy Dakar day empêcher tout ça day indi crise tiital Bassirou Diomaye Faye Sonko ba tiit ñoom ingénieurs yi ñoom ci li lañu monter dossier bi état ne d'accord kon nañ ko privatiser ñu ne bingoo am nañu benn poñ. ñu ne nañ def procédure appel d'offre dossier bi ñoom ñoo koy monter appel d'offre yëpp dugal ci ay critères yoo xam ne dañ koy déggoo ak tubaabu siège ba seen xarit bi kooku ne leen bu ngeen fexe ba ma jàll naa leen jox action boo xam ne du nekk seen tur mais action la boo xam ne day nekk en écran damay ut yeneen dugal ci mais action yéena ko moom xaalis bi su génnee ci turu kooku lay dem ci benn compte bu nekk Chine wala Dubaï mais yéen ko moom daf leen koy joxaat après ci suuf ñu ne ko bingo ñoom ñooy monter président bi ak tiital leen ba ñu d'accord ñu privatiser ko ñu monter cahier des charges yi dëggal ci ay conditions yoo xam ne benn sénégalais du ko mën a remplir wala boog dina ci am ñaar ñetti conditions ba ñuy bind marché ba la ko Suez di ko jox ñu ay ñetti critères wala ñaar yoo xam ne yow rek yaa koy am nga xam ne boo participer yow forcément yaay gagné marché bi parce que critères yow rek yaa koy am sénégalais yi duñ ko am ñu dugal ko ci biir dossier d'appel d'offre chata ñu lancé appel d'offre bi Suez ñëw ne participer na daal di jël dossier bi étudier ko def offre am teg critères yëpp mu respecté ko ñun Sénégalais yi respecté cinq yi mu manqué ñu ñaar yoo xam ne amuñu ko Suez moo ko am ñu dépouillé xool critères yi ku respecté ñu ne kii Suez moom dañ koy jox prix te ñuy def dossier appel d'offre bi dañuy communiqué prix yi dañ koy jox waa siège na ko aligneel defal lii plus ou moins tout ça bu siège seere ñu ne ko wàññil bu bu tuutee ñu ne ko yéegal toogal ci digg bi ndax ndax ki ki yor dossier bi dafa am action ci waa siège dañoo lënkaloo <laughs> siège indi offre bu impec teg des fois sax ñu ne ko na cher na gën a cher parce que so offre financière sa offre xaalis bu mën na gën a cher waaye so offre technique moo la jàllale parce que am nga ay at yoo xam ne dugal nañ ko ci dossier bi te yow rek yaa ko am yow rek yaa ci mën a répondre Sénégalais yi fii ay rapporteur lañ mën yoo répondre kon sa offre technique même bu sa sa technique bu fekkee yow rek yaa ko am dañ lay wax nga yokk sa offre financière ndax seen xaalis gën a bari parce que boo ñëwee mënuñu laa dàq parce que techniquement li nga proposé kenn amu Sénégal kon jaayee lu la neex ñoom nag dañuy yokk seen ay offre moo tax bi ñu ñëwee di privatiser Suez moo a bi Suez moo ko gënoon cher Mansour Faye dafa parce que Mansour Faye ak gars yi taxaw tey wër kii ñoo ko complot lekk seen ay milliards te day am ticket d'entrée maanaam waxuma la action yi boo jaayee ndox mi bénéfice ba la nga ci am indi leen indi dong ñoom yow ingénieur bi ak ministre dafa am xët buy njëkk ci ay milliards ticket d'entrée jox la ko nga ne sàq mi lekk toog. loolu xam nga xamu leen ko. li wax ne ñu bari ci yéen nga ma déglu xamul nu muy demee moo tax su may wax ñenn ñi saaga ñenn ñi xaqataay ñii di ree kër kër fekk man li may wax lu solennel la lu sérieux la parce que damaa xam ni mi doon jaay société yëpp privatiser lépp jox ko tubaab yeeg naar yi te ni mu amee ci ndox mi noonu la amee ci courant bi noonu lay amee ci lépp lu ñuy privatiser ci réew mi noonu la demee ICS lépp Sonacos lépp noonu lañ ko defee nii lañ ko defee caxat caxatee réew mi na askan wi dee seen yoon amuñu yërmande gi Sénégalais yi suñu paree nag am nañu ay sëriñ ñoom lañuy seeti ñamal leen ci tokki wat sëriñ def seen i lobby yoon ak ñu baax tabax jumaa fii nekk ci jàkka yi di def social ñu ne social rek ako baax day def social sàcc la social moom mooy guerre mooy corruption koo gis mu am social rek ab sàcc la ñi ci ëpp ay sàcc lañ di ko lewal ci social rek tabaxi jàkk ak ut damaa xam ni ñuy sàccee ni ñuy privatiser ni ñuy laxasee ay dossier naka la